que ni muy festival des enfants du Baol bi nga xam ne Diaw Baas moo koy def ak ñi àndal di liggéey bon ñu rafetlu idée bi du rafetlu initiative bi. ñu gis ko idée bu nice idée bu cool bu rafet ci njaareem sax nag loo xam ne mosu fee am mu ñuy permettre suñu doom mi léegi sax ngoon ci fête bi ñu ngi génn di am fu ñuy dem. nekk idée bu baax instant ñu ngi leen préparé di leen létt di leen jëndal ay sañse pour ñu mën a génn dañuy bañ sax ba léegi dañ ñu yaay ñun trois cinq fois yi ñuy joué sant Diaw Bass daal di ko gërëm ci affaire bi xam ne idée bu nice la te ñu ko ci mën a jàppale tamit jàppale ko ci ndax mosuñu ko gis Jurbel ñun nag luy doxal Jurbel rek ci la ñu war a taxaw moo tax it dinañ ko ci jàppale fekk si ko ci ñu ko ci mën a fekk si tamit nga fekk si ko. gis naa ci ah lu baax la de pour xale yi tey jii nii man mi yor naa samay jarbaat yoo xam ne ca kër ga saa yi mu wàccee dama leen indi fii ñu def seeni i yi ñuy def def lu xam nga pour dundal xa pour lu baax la daal ci xale yi lu baax la ci xale yi baax na trop ci xale yi ndax xale yi dinañ mën a xam nga Jurbel moom mooy dëkk boo raison boo xam ne xale yi amuñu fenn fu ñu jëm genre yi nii dafay baax trop pour ñu fi ñëw di dundal seen xol tuuti xale moom fu mu nekk rek day mën a su suy am yooyu ay affaire yu jeu ak yooyu rek dundal xolam tuuti xam nga génn usolewu dundal xolam après nga dugg yóbbuwaat ko mu ñibbi waaw. daawati jéeg def na ko moom mu réussir daaw amul parce que Covid moom moo taxoon ren nag incha tegaat deuxième édition bi. bon juste ñun appel bi ñu ciy lancé di waat population bi di waat autorités ñu ñëw gën cee jàpp parce que def nii bon déjà yombul que jël benn somme def ko ci benn activité teew xaaroo ci dara da nga ko def juste pour bëggal askan wi pour bëggal xale parce que bu ñu nee décembre bu njëkk dañ laa jël fee ñëpp dañuy gën dem Dakar ñi dem Thiès boo di feete foofu noonu léegi ñu am benn structure boo xam ne mën na la defal à euh, chaque année mu ni la tegal le ko war a jàppale dañ ko war di rafelu idée bi ak initiative parce que day dugal économie day dugal lu bari ci parce que boo xoolee ci côté transport bi chaque jour Jakarta man dañ doon indi client di ñëw taximan bi da ci gis boppam jaaykat bi da ci gis boppam dañ ko war a épauler dañ ci war a mën a gën a jàpp ñi waa daal bool bool ak tamit autorité buñ ci xaar nañ ñëw indi dugal ci seen doole parce que kii li def ñoom ñoo ko waroon def door ka ñoom defuñu ko kon nag ñoom nañ ñëw jàppale ko ci événement bi que ni bool bool yi génn 10 jours la yàggul que ni feet la décembre la yàq bu njëkk Jurbel li amu foon dara feeñ da daan naqari kenn xamul lu mu nuru kon boobu bu ñu amee koo xam ne que ni Jaw Baas teg na ko fi ak yeneen yeneen événement yi ci di woo gars yi daal ñëw ñoom ñëpp jàpp ci waaw. man de su ma sañoon euh, du yem sax décembre bii rek mun na dem euh, mois avril bi tamit avril bi boobu feet gi day bëri feetu Pâques bi ñu defal ko fii xale yi kenn bañ a dem ndakaar di ko feetoo wala dara ñu toog fii def ko fi loolu tamit da ciy baax trop ma lancer message si loolu daal pour mu ñu bañ ko def si décembre bi rek daal. avril bi tamit day baax trop jaajëf.